asebilahi mi sitaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi téléspectateur Nour na leen bu baax a baax ñoo ngi fii si Rosso Mauritanie foo séenee waajal dem Sarsara eh, kon comme ni ko defee woon daaw rek màggal Sarsara gi waaye ren tawat nga xamante moo si àdduna bi ñoo ngi ñaan suñu borom mu jëlee ko fi barkeb Seexu Xadim moo waral ñu def délégation boo xamante ni juróomi nit lañ fas yéene dem saara taw gi nag moo tax ren amul waaye lu mënta ñàkk la mooy dem def benn délégation dem fa e, joxe liggéey bi nga xamante ni moom daan def at mu jot kon la doon na présenté fas yéene jaar xumaag ak yeneen barab yoo xamante ni sëñ bi jaar na fa incha allah lépp loo xamante ni am na si jotaay bi rek dinañ leen ko tegal ngeen seetaan ko incha allah jaa ngeen jëf. Hadi canım.